Pacu xibaar uh, yi ponk bi ci ñëk di xibaaru tagat yaram ñu ci ànd ak soxna Falkan soxna ci ñu ngi lay nuyu ma ngi lay fay soxna ci am Thiam aji bu ñu wax ci wàllu euh, football la ñu koy tàmbalee GFC Pikine mu mel nii ba léegi rek lu jëm ci wàllu arrestation yi mu ngay woy ci côté supporters yi. am na ay supporters yoo xam dañ leen a arrêté ginnaaw démb ba nga xamee ne dañoo dajee te ñii di waa GFC am appellant yi dugal ko ñu contesté lu nu mel ñu ngi ci ligne bi ak Mamadou Fofana Fofana maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna ñu mën a jàpp lan ci li nga xamante ni si moo xewoon démb ci stade bu ama du bari waaw kon euh, ni nga ko waxee noonu la am na ñeenti supporters ñu pare ci kon euh, ay Pikine ak kenn koo xam te ne nii kon Guédiawaye football club euh, la bokk ñoom juróom ñëpp nakk fu mu nekk nii ñu ngi si commissariat central bu Guédiawaye lañ leen tuumaal daal moo di lu jëm ci wàllum trouble à l'ordre public kon fu mu nekk nii daal ci xibaar yi ñu taataan daal moo di fu mu nekk nii kon daanaka dañ leen waajal rek ngir yóbbu leen présenté leen ki xam te ne kii moom mooy procureur ndaxte daal jàpp nañ ne la ñu def le lu jéggi dayoo la boole ci tamit euh, ci kaw coow gi nga xam te ne nii moom moo fa am ñoom ñi nga xam te ne nii ñoom ñooñ jàpp daal euh, ki nga xam te ne nii nag mooy commandant corps urbain bu commissariat central bu Guédiawaye da ci amee ay gaañu gaañu ci jafe yi nga xam ne euh, kon moom moo fa am ci kaw loolu tamit oto bi nga xam te ne moom la commandant ba ci boppam kon doon dawal tamit daanaka dañ ko tojote ba tax na ne daal donc loolu lépp moo tax alkaat yi boppam nañ ñu xamal daal moo di ne mu ñëguñu bàyyi ñooñu nga xam te ne nii nag teg nañ leen loxo mu nekk loxo xam te ne nii lu doy waar fitna kon dikkaat ci li nga xam te ne nii mooy ñaareelu euh, ndaje bu am kon ci diggante Guédiawaye football club ak AS Pikine ca pàcc mu njëkk ba kon mu di phase aller ba gis nga incident ba ci amoon ba ndem si yàlla ki nga xam te ne kii mooy Ibrahima Ñing euh, donc ñàkkoon ci bakkanam kon fu mu nekk nii ni ñu la ko waxee rek soxna Fall kon ñooñu nga xam te ne nii ñoom la alkaati yi teg loxo ba léegi ñu ngi ci commissariat central bu Guédiawaye ñu wax mu nekkoon seen naataango Mamadou Fofana ci commissariat central bu Guédiawaye ngir la Sen TV. soxna Falkan mu mel ni démb diggante jaraaf euh, diggante Pikine ak Guédiawaye football club tàngoon na lool. tàngoon na lool te moo ne de ki nga xamante ni si mooy bàyyi po Ibrahima Ñing te match aller ba mu ñàkkoon ci bakkanam moo joxe coup d'envoi bi ngir rek euh, fexe xale yi ñu def loo xamante ni si bàyyi mbirum violence ci biir stade. bay violence ci biir stade yi moom président Lamine Gueye nag ci suba gis nga ko mu ngay wax bay xëxët ndaxte kat nee na euh, gis joueur bu sol euh, nag uniforme bu sol mayo ñu koy door ci terrain bi loolu dafa révolté supporter yi loolu moo tax xam naa ni supporters yi ak penalty bi nga xamante ni si arbitrage bi temps yëpp bokk na ci li nga xamante ni si ñu ngi koy décrier ci biir championnat national bu Ligue 1 loolu dinañu ko topp ngir ñu xam euh, lan moo waral chaque fois ci ay match rek ñoom ay jafe-jafe day judd ci seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy supporters yi wala joueurs yi su ma deex di ci am waaw ñu wax uh, ci lu jëm ci wàllu football ba léegi ak Lamine Fane bu jaraaf nga xam ne nag moom daal dina dellu siwaat bu baax ci biir compétition bi gina bu mu amalee ab doublé ab doublé la amal nag démb seen match bi doon dox ci diggante port ñaari bal la dugal benn bu njëkk ba Siré Dia moo ko dugal ci appelanti tax ñu am ndam jaraaf mi nga xamante ni soxla woon na lu nu mel ngir daal di sori zone de relégation bi Lamine Fane signé retour am daal di wax ay mbébétam yi nga xam ni moo nekk ci kanamam ne ci blessure jógee kaddu yaa ngi nii ñu teewlu ko huitième journée laa gëjoon joué parce que dama gaañoon contre Wakam après depuis ma tanewaat quoi ñëw joué contre ñaari tali ma dugg deuxième mi-temps après ma joué contre douane gagne wat non dama ci content trop parce que xam nga rek man lool la bëgg quoi à chaque fois bu ma joué may dugal ay bi quoi parce que man tamit dama bëgg bokk ci seen gars yi ñuy sélectionné équipe nationale chaque fois damay joué mais bu ma commencé di briller rek après ma gagne moo tax ba légui amaguma sélection man tamit arrêt bi ni mom dama dama bëgg bokk ci gars yi ñuy sélectionné quoi équipe nationale la waaw am naa mérite bi te maa ngi koy liggéey te damay continuer liggéey quoi pour gars yi man tamit ñu gëstu ma quoi man tamit dama bëgg bokk comme année année bi passé rek bokk ci meilleur buteur yi même bu ma nekkul premier nekk deuxième wala troisième rek comme david rek. waaw gaañu gaañu défenseur xam naa ne dañ may ragal rek moo tax ñu ne xaaral ñu éliminer ko ci wàllu Ligue 1 bi ba léegi Port moom daal dina wéy di am yaakaar ci des ci boobule compétition. Port mo jël ndad ci Ligue 1 bi famu nek nekk na fa lool jugee gufa ginnaw bañu ba ñaar amalee ñaar fukkeelu bi ki di malik daf di leen tagat japp na ni but bu njëkk bi ko jaraaf duggal jaarul ci yoon erreur arbitrage la ko gisee waaye teewul défaite boobu mu am amna yaakar ci li des ci championnat bi Port daal di yëkkamti ko waat naam sax xam ni du yomb waaye mom ah, mi ngi dess batay di gëm lu ñu mel malik daf moy seen entraîneur. di am lu ñu metti bu baax parce que match bi ñu joué tey xaw ma ne match yi mais bi ñu joué tey wax dëgg yàlla no doon na match boo xam ne yomboon na trop si ñun parce que match bi ñun ñoo ko téye suñu loxo mais comme nag football mën nga dominer am match bi te doo gagné mooy li ñu daal tey ils ont vraiment manqué de métier li ñuy wax ne amuñu expérience ci football. parce que match la boo xam ne mi-temps adversaire bi am na jafé jafe pour sax tim suñu camp pendant 45 minutes suñu góol deful arrêt donc loolu yëpp wane na ni match bi yomb na jaraaf am nañu problème ba def changement en 20 minutes de jeu donc wane na ni ñoom sur le plan tactique amoon nañu largement problème mais comme nag mun naa ne ci premier but bi am na erreur d'arbitrage penalty bi sax du penalty mais boo ko waxee dañuy wax ni li nga perte moo tax mais c'est pas grave mais on a remis les pendules à l'heure après en deuxième mi-temps à force de vouloir marquer le deuxième but en deuxième mi-temps ci bëgg a dugal ñaareel bii bi jël nañu bi boo xam ne suñu benn défenseur moo passe retropasse ci gannaaw perte balle bi ñu dugal ko encaissé ko donc li may jàngat mooy am na amoon nañu match bu yomb suñu suñu loxo ñu moom ko ñu sàgganee ko adversaire bi jël ko boo xoolee score bi muy 3 nga yaakaar ni dafa def lu rëy deful dara lu rëy bi jug yëpp ñoo ko maye. waaw loolu sant yàlla rek sant yàlla parce que boo amee 9 jours itam yombul nga tabaxaat équipe ci tabax la ñu nekk nag tabax bu ngande la ñu nekk. parce que lu baax boo ko amee liggéey ko ba mu baax da nga koy sàmm téye ko loolu la ñu waroon def mais defuñu ko dem nañu li fi nekk ay jours yoo xam ne ñu ngi jóge ci niveau inférieur jóge ci ay nawetaan jàngat bu métti moo fi am chantier bu yaatu te yàgg. léegi championnat bi na. ñu yaakaar am na ñu dal gëm nañu ba léegi mun na nekk. soxna si lu jëm ci wàllu classement bi mu mel ni nag coppite amu ci. li tax amul coppite ñu nekk ci kaw ñoom ñëpp dañoo def match nul bokk na ca jàmbaar mu def match nul ak Linguère benn ak benn la ñu def ngb ci digganteem ak Sunewor 0-0 la ñu def waaye ki nga xamante ni si tamit mooy Stade de Mbour moom dafa def match nul 0-0 ci digganteem AS duwaan loolu moo waral amul coppite ci mujjantal gi tam amul coppite ndaxte ki nga xamante ni si mooy Port nekk ci mujjantalu place ba dañu ko daan jaraaf moo fa jaar ñetti bal ci benn AS Pikine tam ñi di waa GFC leen daan ci dara ci ñaar fukkeelu bëccëg bi ñu mën cee jàpp juróom-ñeenti but yoo xam ne dugal nañ ko ci mu mel ne bile yoonu but yi bariwul ndax attaque yi waxuñu euh, lu bëri. ñu wax euh, ci football ba léegi waaye ca bitim réew euh, kii di Sadio Mané nag daal dina rek dugg ci histoire Premier League. dugg na ci taarixu football ca Angleterre ndaxte ab triplé la def bi gën a gaaw 2 minutes 56 secondes rek la ko def attaquant sénégalais boobu nag ñëw ren ji ca Premier League nekk fa di fa def lu am solo. muy ko xamanteni si bam fa nekkee ak léegi mi ngi dugal ay but but yu am solo lo xam dina tax équipe bam ñu ragné ko bu baaxa baax ci championnat Angleterre Bobé, Sadio Mané nak, euh, ci doomu Sénégal la mom nak euh, nee la 2 minutes 56 secondes la daal di dugal ñetti but muy but yo xamni gaaw na lol ci walu football fofé ci Angleterre mom sax fan yële ñu génn bi ñu dal bi Aliou Cissé ci invitation ANPS. ñu ngi doon wax ci ay mbiram ni Sadio Mané qualité yi mu am aisance bi mu am ak clairvoyance bi mu am tax na koo xamante ne si am na avenir ci wàllu football la ñu daal di rek euh, dëgmal li nga xam ni mooy éliminatoire CAN 2017 yi forme bi nga xamante ne si Sadio Mané nekk na ko ci jamono yi muy dal xel ñu wax ba tey ci wàllu football wax ci doomu ghanéen bi di André Ayew moom nag euh, fal nañ ko li nga xamante ni si mooy prix Marc Viviane Foé André Ayew moomee nekk ca Marseille euh, dëkk ca Ghana am ci lu toll ñaar fukki at ak juróom euh, moom dugal lu toll ci fukk bu ci Ligue 1 bu France wax na ni sax dafa bëgg a jóge ca Marseille boobee seen président Labrime li mu xamle woon mooy mbiru koppar moo tax mu bëgg a dem te euh, kii di André Ayew nekk di def saison bu mucc ayib def saison bu mucc ayib ndaxte benn journée rek moo ca des gis nañ ni ci jamono ji am na lu am solo lu mu def ci seen championnat ba mu daal di jël bile prix Paris moom mooy champion ginnaaw ndam li nga xamante ni si am na ko ñii di wa Barça tamit ci Liga bi ñoy champion ginnaw seen ndam li ñu am nak demb ñom ñoo Barça wala final le 6 ak wa Juventus Ligue des champions ñom nak amna li nga xamanteni si bëgg nañ ko def ren bokku na ci daal di coupe yépp yi nga xamanteni si nañ ko fa lu mel lañ ci Paris Saint-Germain jël na ñetti coupe kon benn coupe rek mo leen déssé muy coupe de France ta ñu war ci dajaak Auxerre fanweeri fan ci weeru mai bi lañ ko wara jouer ñu daal di daal di ndar képp seen saison def saison bu mucc ayib soxna Ndeye Diantaal. ana ana équipe bu mag bi ngay tiitaroo. équipe bu mag bi dafa dóor démb Real kii di Chris dafa doublé triplé sax la def waaye ñii di Barça ñoo leen raw benn journée rek lañu desee jël nañ championnat waaye teewul ba tey Real Madrid mooy équipe bu mag bi. accident ci pàcc bu mujj ci xibaar yi muy li ci yéenekaay yi ñu ci ànd ak El Hadji ay dara